ci moom cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawfeex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaolack Thiès wala Sakhindar Ndar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo leen di may sen sketch ganu Thiès. loolu laa mbëgge njoon de nee naa ko sama natt bu ma ko teggi léegi teg ko foofu dama cee bëgg jënd ay or waaw mbëgge moom est ce que teggil na ummi teggilagul ummi maa lu tax teggil gën a sori ñetti loxo la boobu waaye ku nekk ba Mauritanie ñu lay teggi suñ la teggilee te nattaatoo nag ah na xaar tuuti waa Sénégal teggi ah, natt bi gañ ci bëri dañoo bëgg tamit nañu wax ci ndax newoon na bu teggilee sacha man maa ci toog waaw yow teggi na la benn loxo waaw damaa bëgg mu teggilaat mu beneen loxo bi dafa yomb nag ñu sa ñaari loxo yëpp soo dawee nag dem Mauritanie fekk fa ummi Ah. yow fan laay daw yow xanaa bu ma dawee yow la ñuy jàpp. ma jaaxal ah, man daal na ma sama beneen loxo bi ma boole ko ndax bii ma jot a teggi laalu ma ci dara. dama koo denc am di xaar la ñëw ma am ma am lu ma ci lu ma ci. kii sax xel du doy. Hmm? sa loxo bii nga teggi ngir yàlla bu fi nekk naa da ngay jaay jonge gu forox ak jonge gu ënd naa da ngay jënd ay ginaar ñu ko sëyalee sa jëkkër ji. la nga am jox ko ko genn wàll xaaju ceeb gi ngeen di lekk di ci añ di ci reer ñun garaaw ñun duñu nettali xam naa ne ceeb ngay añ di ko reeree ngir yàlla denc sa xaalis bi dajale ko ba mu baax dem jëndee ko or ndax jigéen kat or sagam soo génn say nawle kat ñu naan say ba neex na or baa tax te yàlla xam na ne soom bi nga aña di ko reere soo amee problème sax nga wax moom dëgg la tey moom wax nga ma dëgg waaw léegi nag xaalis ba mu ma njëkk a teggil mag ma denc léegi nag dama ne ko woon bu dindilee bu teggilee chacha ba pare bi ci des mu jox ma ko yow sax soo ko dajalee mën nga cee jënd terrain cinq cent mille ndax location damit métti na soo avenir dafa baax ngeen xool avenir góor ñi dañuy soppeeku. ma ne damay dem marché ni climat wu Sénégal di soppeeku. jënd ci yu rafet jënd ci cheveux yu baax. loolu yére yu rafet. yow mère nga mënoo bàyyi ñu jox la ñuy sañse sañse ah. loo yow nga xam ne xasi jigéen la lay dundal. ñaari mag mën ngaa ñetteel trop. ak yow. surtout du woon baax nag. du woon baax de ah yow fii kan nga fi gis ku dul tontu xanaa dangaa fàtte keneen ka nañ ko jàppee nii rek te nag lu ñu yëg mu siiw ñii man dama leen ragal sa xaas bi denc ko denc ko nag fu wóor balaa nga naan de sàcc nañ maa lii sama tegg bi daal kay bu siwee wala nit xam ko yaa ko xam man mi yow natt bi ba may bokk yow yow doo nga ko xam kon nag tegg bi tamit bu siwee ci kër gi rek yaa ko si dañoo ñëw ne la kaay fàtte ne dañ koy sa ah man xamal ma dara wax la wax waaye xasteeg dëndré waaye fen daal ñaaw lu ne nga koy wax sama jëkkër ju ñaaw jee Ndumbe kaay. kaay dama la soxla kaay. waaw kooku da laa jàpp. déedéet kaay taxaw la. dégg nga. dama laa bëgg yónni. kan man. foo eh, jëm. Eh, eh, ah waxoo dama yéen. way sama ndey boo demee xanaa loo yóbbu. ah loolu jaaxal xam nga. waaw waaw dina la jaaxal kay ndumbe nag dégg dégg nag ndumbe jaaxal nga ma nag. ndumbe yow sa bopp bi Wah na si sa bopp bi sa yaram bi. ah gisoo ko. waaw xoolal koor gi dafa métti. trop kay. dama la bëgg a yónnee nga dem ci sa tonton Matar Sylla. Matar Sylla. Wah Matar Sylla. kay kay alal ah yow Ayo dama yónni si Matar Sylla. boo demee lan ngay wax Matar Sylla. kaa moo ma yónni. loolu kese. kese. soo demee nga ni ah kaaw mu ni ah kër gi dafa doy waar ah nee na nga lijjantil ko foofu dara su fekkee fekkuloo mataa si laa nga jàdd si Sadio Sadio boutique noonu dew ma ma man yow danga ma yéen am nu ma koy yóbbu loolu ma koy jox ma yéen naan ay kër gi dafa dëgër nee na nga may ko xaalis dew ma jàppale ma damaa demul ñun suñu papa dafa ni mag bu leen yéen ñaan xaalis ngeen bañ tey xale kenn du ko yéen ay ñaan xaalis kooku sama wëlle kon day ñàkk jom xale da nga koy bàyyi da nga koy jàngal leneen waaye ay yéen xale bu ndaw nga koy yéen ñaan xaalis tey mu ñaan fii soo mu ñaan kee bu amul day sàcc loolu rafetul kenn du ko def yéen yéen ñi denc xaalis bu bari bu ñu mur seen biir néeg doo ci jël nga ko ban xaalis lay denc sa soxna sa jabar sama jabar ban ñaata jabar nga am Soori Jaay waaw loo wax ci Soori Jaay dafa teggi loxoom natt ñaari loxo la teggi benn benn bi daf ko teggi benn bi teggeegu ko léegi bi mu teggi nag mu ci biir néegam mu denc xaalis bu bari la teggi bilaay walaay waaye moom fàtte nañu moom la ñuy waxtaan fële. ma nekk di yéene di ñaan ay teggi na xaalis bu bare mi ngi ci biir am wala mu denc. moo wax kay ma dégg moo ko wax. waaw moo la ko wax. yow xaalis bu mu denc. waaw waaw ndaw rek sa baat demal de. ça va.

message waaw seen ma kenn ci yow de. waaw déedéet yónni woo kenn kono yëf dama toog foofu jaaxle. la presse dafa yegg si def différence. waaw waaw tey boo ko ñamee di nga xam ne dafa naturel. <laughs> la presse dafa yegg si non stress. mu daal leen connexion yi ñu partagé ko. si la presse moo xew. te wax ci bépp xew. maa ko ñam la fraîche mang, la fraîche orange. la fraîche oh, ananas. cocktail. pêche. <laughs> la amna je la fraîche. selfie. la mu ah, la fraîche. la fraîche. La fraîche macaroni vermicelle ketchup mayonnaise petit pois ak spaghetti tey la fraîche gis ndumbe noonu muy romb sax ma woo ko après foofu téléphone am soni ndeen téléphone am soni suma benn sëriñ bu ñu wax mam Malick Sey ku garaaw ñu waxtaan ba yàgg mu ne ma kaaw kaalis amul ndeer suuduma bi moom i kaalis mu ne mu waaw kaalis mu ngi sa néeg ma ne ko man mun na ma waaw mun na ko ala maam Malick man maa ngi doon bëgg a yónnee sax ci Matar Sylla bu nekk Dalifort pour mu yónnee ma kaalis mun na ma déedéet xaw ma ko yónnee kaalis ak ku lay jox kaalis kon kaalis mi ngi foofu ma ne ko kanaa jinne Moussa moo ko dugal foofu mun na ma déedéet jigéen bu kees moom moo dugal kaalis bi foofu kaalis bu xaw a bari la ma ne ko ah mun na mu waaw te dafa mën a ko ndax sax dafa gudd ku jigéen ki mu ne ma dafa xaw a gàtt ma ne ko ah kadi mu ne ma waaw ma ne ah, xaaral mi ñëw su ma ñëwee ñu waxtaan ba xam la message boobu dem maa ngi jégalu kaaw sa sëriñ boobu moom moom moom xamul fu sa wërsëg nekk yow nga dem rek tibb ko jël ndax benn melo bi miin nga ko trop te yoroo kooku dafa garaaw benn man man xanaa moo week mooy sama couleur bala mais da ngaa yorul yow da ngaa yorul maanaam fu mu wax la sa wërsëg fu mu nekk rek nga dem tibb ko indi comme gis xaalis dafa garaaw boo <laughs> teg ah, xam nga li ma jaar tiitu damaa xalaat ne est-ce que néeg bi amul ku ñu rax ñetteel bu ñu rax ñetteel ndax man maa fa nekk waaw ak ak moom mii hmm. xanaa dafa am jabaru rab te jógaguma fi ma toog waaw yow léegi rek li ñu doon waxtaanee xaalis nga aar ma lu ma dem defaree ndogu loolu la leen doon waxtaan ci ah, léegi moo jaaxal sooda boo buggee dégg dégg mooy am nga kaalis <laughs> kaw nag am nga fit man fu ma ah, jëlee xaalis léegi moo wax la wax bi waaw waxal nga teggi yow pour wax la wax mu leer de am nga kaalis te nga teggi natt te yaakaar ni sooda man ak yow lu ma liggéey yow laa ko jox lu ma for yow laa koy indil su ma demee ba ëmm dogu jot may lijjanti lu ma lekk pour man ak yow nga am kaalis bari nga fas yéene ko jël fas ko ci sa ndigga bi kula la conseillé loolu conseil wu la bu lu baax de. waaw yow wax ak yow tey dafa jot yow kaaw kër gi maa la yor wala yaa ma yor. Ah, ay kan kan yorantel man maa la yor fii ci man maa lay jox nga man de musuma koo ah yow yëg ko tey <laughs> yëg ko tey sa fàkki ne moo tax wax baaxu xuloo bëgg sama bopp tax ko indi ko ci biir kër gi mën naa la guro ga ma sax jënd kon xanaa man maay jigéen du mën góor loolu moom nañ man maay góor mu yow Ah, xamoo ko xamoo ko mënaloo ma dara. xamoo gis nga bu fekkee natt bi ma teg moom nga teg sa bët. xamoo ko kaaw nag kaay wax la loo bëgg ma jël. Ah. loolu yow leer na. <laughs> loolu leer na. natt baa waa bii jeex na dinaa la xamal nee nga yaa ma yor. yaa may defal yaa may dundal d'accord man musuma la defal dara de. yow loo ma musa defal. yow de ma musa tere ma bàyyi naa loo ma musa digal def naa ko loo ma musa tere bàyyi naa boole xoog nag eh, eh ñàkka nga li yoonu taseet bi ma nga ko li ma yor tey dem taseet dootoo si dugg di dem fenn yow nootoo sax doo fa yem yow maa ko moom bu la neexee six mois séparation de l'accord eh, eh. nga xam man maa ko moom nañ ko def nañ ko doxalee noonu soo de nañu ko doxalee noonu yow lekk naan nga ko def weer bu nekk nga biir weer bu nekk nga biir. ma dàgg sant yow weer bu nekk nga biir soo ay mi ngi lay dugal combat boo lay di nga bugg a génn si combat bi soo de mu nga cël. maa la ko wax du maa ko moom lii moom maa ko moom ah du dee dem taset doo dem nootoo yow nootoo bu jamaa doo fa tey. may ma ngaay soriwul ngaay soriwul dégg nga waaw kay. Eh. bu la dara jëlee ci moom tontu ko ndànk nag tontu ko ndànk nag waaw. fulle rek nga am xaas ci ak mom ya ko liggéey li ne la yor bo fu mu amati wa léegi yow bu doon yow noy def ah question boobu nañu naan xuusal jàll hmm. fii la nexé xana xuus ba muy neex dem rek jël jële ko am seen bi li yaay borom ah jëkkër ka sangal tay ji ku ñaw ci mom un cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawféex di Kat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaolack Thiès wala Sakhindar Ndar ngeen mën ko jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo len don may sen sketch ganu Thiès.